nekkoon euh, Moodu Moodu ca Italie 2011 ma ñaan vacances ñu may ma vacances ma waroon na màggal si Touba ñu may ma weer bi ma ñibbisee da nga doon liggéey waaw dama liggéey waaw ci benn usine bi ma ñibbisee bi màggal gi amee bi ñu màggal ba am 15 jours européen yi daal di réewum xadaf ndax avion xadaf laa jëloon muy Afrikia Air Afrikia moom laa jëloon léegi bi ma ñëwee amee 15 jours ci réew ci dëkk bi lañ bombardé xadda réewum xaddaaf yi léegi avion Euh, personnel yëpp la ñoo gaare ma dem ci encense bi mu ne ma léegi exactement solution mooy ragal beneen billet te man un mois la ñu mayoon booba léegi maa dem ci encense yi laaj leen ndax mën naa am billet bu jegee ñu ne ma mënu am billet ndax ab pala yëpp fees na mooy bi nga bëggee delluwaat mooy delluwaat waaw pour avance ma di avance ma kii bi jeex li ñu mayoon amee jeex ñu ne ma fii loolu dina jeex ba am vii benen nga doog am place ci laa ci laa ci laa amee beneen euh, beneen beneen avion moom la TAP mooy bi def directement Dakar Rome moom laa mujj jël ba ma yeggee la lendemain ba dem usine ba fekk fa leetar ñu licencié ma la date bi ñu la mayoon. délai bi dafa dafa dafa jeex. app bi app dafa jeex. ci la war a jeexaay gi maanaam avion bi nga xam moo njëkk a bombardé réewum Libye Italie ñoo leen abal seen base ñu ñëw bombardé réewum Libye kon man cas problème boobu moo tax ma tardé waaye du sama du sama cas du sama problème man ndax ba dem jël naa décision pour daggaat billet mais uma place bu jege maa ngi ci li ma licencié ma def fa un un ma def fa un naa fa un an ñu jox mu boole ma ak mais avocat yi mujj mujj mujj ñu lijjanti dara ci problème boobu ci laa daal di ba nga ba te ma doon fay sama découpage ba mu desee euh, un mois ci laa daal dagg bii man bii ale ñibbi si Sénégal ne dootuma dellu Sénégal ndax am réew mu ne dootuma dellu Italie ndax am réew mën a fa am yenn ñaar fukki at ak ñaar fukki ak ñett fa benn droit kon c'est pas nga fay toog ndax amoon naa liggéey bu baax ñu embauché ma ma dem ba banque la ma xaay ma jënd kër ñu xëy xëy dàq ma ci loo xëy tegul ci yoon kon nag c'est pas la nga fay toog damay ñibbi sama réew 2012 janvier 2000 5 janvier 2012 laa ñibbi Sénégal ne dootuma dellu dama ñibbisee ma defee 3 mois ma nga seen kër nii actuellement ma awa bi léegi ma def fi un an sama yaay feebar may wanteer sama kër mënu maa fexe gis ko ko jënd ma demee ba ci 2013 bi la kër gi doog a jar kër gi fan la nekkoon kër gi mu ci boori Idipor laa ko laa ko wanteere 1 million laa ko wanteere da ko jotoon tabax ba pare miree naa ko mu def benn bunt def fa ñaari néeg yu raase ak benn néeg quatre cassé boo xam traax nañ biri biti ba monte seize xëy mas léegi lan moo tax bi nga amee problème ñu licencié la foofu xanaa amoo woon ay papier yu légal foofu ci réew ma am na ay papier légal lu tax mënoo woon dem nga liggéeyi feneen wala nga jaay lu tax ngay gedd di ñibbisi maanaam lu tax ma gedd ñibbisi damaa xam ne bu ma toogaatee delluwaat naa bu ma delluwaatee la taxoon ma ñibbisi laa fa gisaat ndax li taxoon ma gedd na ñibbisi damaa xam ne tubaab bi bu ñu la xasee xasee xasee xasee xasee xasee licencié pour nga amaat liggéey dutu yomb mais nga dem jaay man jaay mi yàgg naa ci ma mosuma mën a jaay jaay dara ci mën naa la expliqué ci njaay mi loo xamante lu wér lay doon ndax bi yàlla dogalee ma wante sama kër ba delluwaat Italie kër bi ne la la la quatorze la euh, euh, la waaw la la quinze euh, avril ne cëpp Italie ci bori quatre ci la liggéey bu ma ñëwee fekk naa banque jël kër ga ba jaay ko joxuñu ma dara ci kër ga dañ ma ko lebaloon ma liggéey di fay weeru dee ma fay waaye bu ma egg eggee fekk naa banque jël kër ga ba wanteer ma def fa presque six mois mënu ma am liggéey ma dugg ci njaay mi jaay naa presque été boobu été bi jeex lu ma dugalee sama këy sax mënu ma ko am lu ma lu ma mën a ma am cent cinquante euros yu ma mën a fayee pour samay papier mënu ma ko am léegi léegi ci nga dem di liggéey. ci la ci la ci benn benn kii jël euh, benn euh, ici benn non benn euh, waa commune bi ñu doon def benn feet feetu seen parti PDS boobu ci réew mi fi ñu monté seen base yi fa lañ ma jël ma liggéey fa deux semaines ba ñu ma fayee ci laa dugal dugal samay këyit mu dugal këyit dañ na yow sa këyit yi yaa ngi koy dugal waaye wóoru ndax dina génn ndax date bi la ma jeex na ndax këyit yi mu waroon jeex la 18 avril ma ko ma dugal ko sulee mois de sulee ma kon passé na trois mois te trois mois la loi bu jeexee ba après trois mois mënatoo ko renouveler. léegi bi nga bi nga bi nga jógee ca réew ma ndax tolof tolof boo fa am nga ne buñ la xasee licencié pour nga liggéeyaat feneen dafay jafe. waaw parce que ma delluwaatee def naa fa 200 mun ma am liggéey bi ma ñibbisi maa dëggal bii. dëggal bii ma ñibbisi ndax damaa xam ne bu ma gënee toog ndax laa bañoon bu njëkkoon itam moo feeñaat foofa la taxoon ma ñibbi ci 2012 ne duudu ma dellu bu ñu ma bàyyoon kon su ma kër ma koy enterre waaye ñoom foog nga delluwaat ma delluwaat laa doon bañ gisaan naa ko ndax dafa def naa fa 200 mun ma am liggéey léegi exactement lan nga bëgg léegi exact exactement dem bi ma ñibbisee damaa ñëw toogu ma dem naa fi Dakar doon fi jéem a dawal taxi sama benn dëkkandoo jël ma ne ma yóbbu fa yóbbu fa pour dimbali ma mais Dakar bu fa minute doox maa taxi trois jours laa fa xëy ta yor fa taxi ci trois jours yi premier jour bi maa ngi commencé une heure di tourner biir Dakar ma wàccee ma am 10 000 ma versé ko mu ne comme démb bi gannaaw suur na nga am 8000 yi baax na te journée bi mën nga ko versé deuxième tour ma am 15000 policiers yi jàpp ma ci manque de libéré ma joxe 2000 versé 13000

tamit. déet ba liggéey quatre jours da ngay toogaat yeneen quatre jours. Mhm. doo ko am douze mille. xew ma nga ciy am. waaw huit yi douze mille nga ci am. lu tax nga bàyyi ko fa. lu tax ma bàyyi ko fa. maam benn douze mille yi damay am ay frais foofa. te damaa yor kër fii pour yónnee dépasse. bi ngay bàyyi da gis lu ko tane wala da ngaa bàyyi toog. damaa ñëw Touba ñëwoon euh, Tabaski. gis benn maara mu ne ma am naa liggéey la ci Dendey an dem foofu ne ama ànd ak mu dem Dendey ba ma eggee ba liggéey ba jeexee mu doon bay bay terrain bay ab terrain mu war a tabax kër ak gopp ak gopp moo ëppoon xaalis ca mbooro mm-hmm. mais gopp laa yoroon di bay am ñax ci biir nawet bi ndax dafa bëgg a tabax kër ba liggéey ba jeexee fekk maçon yi xëy ñoom laa ne ko ci dëkk ba ñuy liggéey liggéey jumaa ci pinc ma ci la ci la wax ak maçon yi ñu jël ma ma fa liggéey journal ma fa liggéey maçon journée 2750 liggéey naa fa ba janvier ba 2017 sama benn mbokk boo xam ne transporteur la yor ay camion mbooro woo ma ne ma damaa bëgg nga dem mbooro damaa fa yor nga liggéey foofu daal di daal di jóge jóge ca ca ca yi daal dikk Touba daal di parapara dem Daaru Xudoos Mboro ba ma yeggee mu boole ma ki xam mooy responsable camion yi mu jox ma oto bu ndaw may may tourné di ànd ak mécanicien bi ñuy réparé camion yi un jour mu woo ma ne ma damaa bëgg nga indi oto bi dakaar boobu tam liggéey boobu moo ëppoon xaalis. ñoo moog bee sorewuñu ndax bii ñu. moog bee ca daaroom nekk moog bee non non ma doon bay mu nekkoon déedéet bu ma doon maçon. sur na 2650 kayoor gi sorewuñu. sorewuñu ndax kii ma doon fay 85000 kii doon fay 87500 kon bii sax mu gën a mu gën. par weer lañu ko doon fay par par weer waaw. Mhm. mais defuma lu mat weer. après mu jënd benn machine. monéton mooy machine yëkkati bagage yi. Dakar la ko jëndee. ndax dafa dafa mën naa fanaan ci yoon bi ba suba ci a yegg ndax dafa yeex ma ne léegi kon léegi gaare foo léegi ñu wut wut bu camion yi bi nga xam ñoo ngi jógee door xud indi carrière ci mbaaw ci foofu ci Dakar foofu ñuy defaree chantier yi ah. euh, ñu euh, boo ñu defaree chantier yi Dakar camion day di ko indi foofu mooy am na camion bi ñëw bu dikkee ci guddi gi après dina ko lonk far yàlla dogal camion bi dikk fu ñëwul ci guddi gi fanaan fa bërsami doog a ñëw mu dikkee a ñu waxaale benn guru ñu war koo fay 45 mille ñu wax patron bi mu ne 45 mille dafa seer jéem leen koo lonk wut leen buum ngeen lonk ko waaw waaw ñu lonk man ak euh, responsable camion bi ak ak chauffeur camion bi ñu dind buum ñu lonk bi ñu ko lonkee mënumaa régler machine bi ndax euh, wetees yemuñu ci kaw loolu benn fourchette bi dafa wadd daanu bi mu daanoo bi gars yi yuuxu mënuñu ko dégg yuux ba sonn mën mënuñu mënuñu taxaw après ñi ci kaw tëli bi ñoo leen di ñoo ko taxaw ñu doog wàcc fari fari forset ba ñëw aj ko ci camion bi après bi ñu déparaatee nag laa ne patron man lii man du ma ko risque ba nekk foofu nag fi la ma machine ba sànnee suuf ma daanu ci kaw tëli bi sama wetu ndajoor bi laa jiital sama ñeenti faar dama ci wetu ndajoor bi waaw tànk bi damm ci wax bi loos bi ba léegi nii day metti ndax kenn rajowu ko kenn faju ak mbaggum da mbaggum càmpoñ ba léegi day métti léegi tellement ba loola amee mu yóbbu ma hôpital Dakar mom patron ñu ñoo ambulance sax moo jël si foofu waaye kenn constaté wu ko parce que tax kenn constaté wu ko machine bi amutoon ay ps mu yóbboo hôpital Dakar ñu xool ndongi ndongi sama ndongi mu ko doon ci côté bam mu daggoon ñu xool ko ñu rajo rajo ko fa après ñu ne lii wóor ñu ko ba ñu nañ ko fan ñu ma fa fan ñu def ma seen kii machine scanner ñu xool ko ne tëjut nañ ko yóbbu nañ ko yóbbu ba hôpital bu nekkoon ñu fa ñu ñaw ko bu ma di kel ci lañ koy ñaw foofu ci hôpital lañ koy ñaw ñu ko ñaw na ba mu fanaane muy kër bu sene kan, kan, kan moo doon kan moo doon fay loolu noonu frais yooyu kan moo ko doon def patron bi patron moo ko def bañoon naa fay 45 000 pour départ ba léegi fay na 45000 pour rajo baa fay jógee jëm jëm si Touba pour ma boole ak docteur yi nekk ma lu fa jox na ma 50000 pour ay ordonnance ak ay passe tax ndax boobu mënu dox en même temps ba loola jeex 50000 lay jeexee ba léegi ba joxatuma dara joxatuma dara léegi na man gaara man léegi man mënutuma liggéey liggéey naa mas mënutuma mas su ba dawal laa mën oto rek laa mën dawal suñu tellement mm-hmm. amutu benn solution bu fekkoonte def defoon mu fay ma loo xam naa ci man a faju waaye tamit kenn ko. mais topp amul ay kayit moo tax constaté ko. li ma doon topp lan. machine boobu noonu la daaneel. machine bi moo amut euh, am moo amut ay xam nga machine yooyu du nekk dina am kayit mais kayitu kayitu wantre rek lay doon waaye doon kayitu kayit boo xam day am assurance ndax wut daw ci góob sëriñ. waaw mais yëpp bëgg liggéey rek ak bëggul ma yor sama jom moom ko yóbbu. actuellement nii tool jamono tool tembe sama kër gi sama aaw ma fa sama ñaar ma fa nekk ci dañoo nekk ci jafe-jafe xam nga moom dem 2012 2012 <laughs> moo fa nekkoon ba nëgë ni waaye ñu doon tam fan yi bu ñu ngi ci jafe-jafe boo liggéeyut boo liggéeyut rek xam nga rek Sénégal mooy lool moom boo yor moom daanaka moom kenn du la considéré ci lenn waaw sa jabar ak sa dom ak sa nday ak sa mag yëpp ci am da nga yor rek ñu ànd ak yow man liggéey laa bëgg gis nga Sidi Kaba mooy ministre de Sénégal extérieur ñoom xam nañ sama sama histoire ak italien yi dara ump leen ci xam nañ ne man ah yàgg na maa bañ mais boo am loo bañ bañ bañ ci demoo ci amu amu amu amu foo waxee say say say naqar ah kenn doo xam yow looy dund loolu moom andi fi tey waaye ñëw pour yàq dara kenn ndax kii nga xamante moom moo ma def jëf ji sama mbokk baa ko bëgg yóbbu yóbbu ci yóbbu ci yoon dañ la bëgg yóbbu ci yoon ndax mbokk lu ñaaw xëju ci waaye nag dañ àgg foo xamante ni bi il faut nga wax nit ñi man fi ne damay dawal pokale di dawal sa charretier métier bari yor naa ko mais métier boo mën a am Sénégal parent loo mooy tax nga mën a àgg ci kaay tant que loo tout ce ginnaaw nga nekk xam-xam boo mën a am nag ak métier boo mën am te moo parent loo doo dem Sénégal mooy boo fi am mais nag la ma ma bu ma ñëwee fii gis naa lu ko raw. mais tamit xeeb bi xeeb bi aussi parce que ci sa biir yi wax bu ma la déggee. Euh, parce que fi nga nekkoon ci mbooro. ñu di la fay boo liggéeyee 4 jours am 12000 yeneen 4 jours yi ci des doo ko liggéey da ngay noppale ko. liggéey bi moom moo tëddee woon noonu. Euh, pourquoi mënoo ci woon continuer xëy na bu yàggee am leneen lu la ci fekk. mais le fait que nga nga nga ne nga xeeb ko nga ne arrangé wu la ndax borom kër nga affaire yooyu. tamit euh, est-ce que xeeb bi tamit war nañ ci xeeb. man man du ma du ma sa xeeb. xam nga xam nga ki jógee Europe. dañ lay fay fii Sénégal tourné mais moom lañ daan moom lañ heure ci Italie mu ñëw Sénégal ñu ma daan fay ma na maa liggéey am daan fay par par par par par journée ah, ah, lañu daan fay par heure moom lañu la fay fii par journée kon xam nga nu xeeb un foofu